ci la nit ji déggee ci la yennoo liñ ko gàll bu ñuy wax ak moom ci xel la ñuy waxee ak moom ci lañ ko toggee jëf waaye xel mooy tax nga mën a saytu diine ak àdduna kon lu nit di am xel a ci gën a foor xel moom nag lislaam sàmm na ko waaye tënk na ko ci ay mbir yoo xam ne ci la war a yëngu sañu ko xel liñ koy sàmmee dañ koy sàmm moom it min jaanibil wujud wa min jaanibil adam ni ñu koy sàmmee ci mu am sax mooy ci nangoo jàng xam-xam bu am njariñ te loolu gis nañ li ko li ci suñu Tuubaa def ak li mu ci wane waaye fexe ba muy xalaat it am njariñ ni ñu koy sàmmee ba du naax mooy fexe ba du réer du jëfandikoo ay mbir yoo xam ne daf koy nëxal wala mu koy wàññi kon foofu la solos jàng feeñ ak sayxu taalim wut ku lay ndax dañuy jàpp ne am njàng objectif ba ci njëkk a am objectif ba ci jiitu ci ni ko sëñ Tuubaa jàngalee mooy gindi ak wane aw yoon ba ki ngay jàngal mën a xam fi mu teg tànkam mën a ràññee liñ ko may ak liñ ko mayu ci diineem ci ak ci àddunaam ci loolu ci lay mën a ak réer ci lay mën a jariñe ay mbindéef ci lay mën a defe ixyaa ul ulum ñeenti mbir yooyu sëñ Tuubaa tudd ku gindiku ñu wan la aw yoon moo ko mën a am gindee ak wanu yoon nag buñ koy def ci xel lañuy waxal xel lañuy yar sëriñ bi daana wax ne ñi lay tegtal ñi lay joxañ ñeenti nit rek la ñeenti xaaj lañ am na ku lay joxañ jëmale la ci àdduna am ku lay joxañ jëmale la ci jaamu yàlla am ku lay joxañ jëmale la ci xam am ku lay joxañ jëmale la ci yàlla nee na ki lay joxañ jëmale la ci àdduna xamal ne dalaa bëggal fitna ki lay joxañ jëmale la ci jaamu yàlla sonal na la ndax jaamu yàlla neexut ak lu mu baax baax ki lay joxañ jëmale na ci xam-xam nag xamal ne awalan na la yoon wa man dallaka ala al ilmi faqad arshadak ki lay joxañ nag jëmale la ci yàlla xamal ne noppal na la daana wax ne jullit bu ne war ngaa am ñeenti mbir war ngaa am daaba ju nooy ju baax kër gu yaatu mbalaan yu rafet waaye ko bu leer ne daaba ju baax li ma ci jublu mooy xel ndax xel mooy lépp kër gu yaatu li ma ci jublu mooy muñ yére yu rafet yi li ma ci jublu mooy kersa waaye làmp bi leeral torse bi li ma ci jublu mooy xam-xam kon lislaam noonu la sonne ci xel sëriñ bi it noonu la ko jàngalee kon xel dañ koy wattu ba euh, lépp lu koy yàq du ko du ko am waaye dañ koy wattu it ci ci ci di euh, ko di ci duy xam-xam waaye tamit li ci di ci di ko xalaat loo gis ngeen dëkk bi ñu ngi koy sanc ci Matlabul Fawzayni bokk na ci lam ci ñaanoon wa mawdi an fikrati wa tafahumi dëkk bi dafa bëggoon mu nekk dëkkub xalaat ak dëkkub euh, amuk dégg-dégg gu sell xel mii ñuy wax nag saa yu demee ba sell ba mat dafay dimbale borom mu nekk noobul mu nekk nit ku mat mu nekk nit ku am maanaa mu mën a xam fi muy teg tànkam ak fi muy teg sëriñ bi dafay wax xel rek nit xel rek daana wax ne ki am xel bu bëggee dugg ci lu baax xelam danaan ko demal bul gestu dara bu ca demee xel mi ànd ca ak moom ba fam ca mën a yem daat ko fa yeew ba du mën a génn kon xel loolu lay jariñ du mën a génn kenn du fa mën a jële ndax xel xel maa ko fay téye moo tax nee bu bëggee def lu lu lu ab safaan nag xel mi da koy yeew ba du ko mën a def bu bëggee dugg ci lu amul njariñ xel mi da koy tere kon xel foofu la toll ci doomu aadama moo tax ñu war koo sàmm daana wax ne xel bu matee bu muccee dafay jaar ci diggante nit ki ak li ko bakkanam di digal waaye diggante nit ki ak li ko bànneexam di digal daana wax ne xel daana wax ne bakkan bakkanu doomu aadama saa yu ne dafay sàkk lu koy lor bu fekkee borom bakkan ba am xel nag xelam moo ko cay génne fexe ba du ko ca dugg nee na loolu mi ngi mel ne benn waay boo xam ne rek daa ñëw dóor la ba nga mer nee na boo bëggee fayu bu fekkee am nga xel mu mat sëkk xel mi maa déedéet fayu jëru ko looy dox di fayu ana fayu lan mooy njariñ lan ban njariñ la nee na fekkee amoo xel mu mat na sam xel daa moto daan la déet fayul ndax dóor fayu kon dóor fayu xel mu matut moo koy suñ tubaa daan ne cam yal nañu yàlla musal ci xel mu matut xel mu manqué daan ne sa bakkan saa yu ne ci lu ñaaw rek la lay jëme lu mel ne di la rayloo sa bopp wala di la loo sàngara wala di la xeexloo nee na moom saa yu ne daf lay jëme ci lu sa bakkan bëgg waaye du la jëme ci ak topp yàlla mukk ci ak mooy yàlla rek la lay jëme nee na boo bëggee dara masalan bëgg koo jël ci far force ak ci tooñaange lu mel ne nga bëgg jël alal jàmbur wala nga bëgg koo këf bu fekkee am nga xel mu mat sëkk xel mi wanaan la déedéet lii kat yëfi jàmbur la boo ko bëggee da ngay wuti njëkk baa nga ñaan ko ko ba mu may la ko nee na lii mooy njariñul xel fii la la mën a yóbbu ci lu baax waaye noonu la la mën a teree ci lu bon moom nag yàlla dimbale ko ba ay xaamaat fikriya alima noonu laa koy tuddee xaamaat fikriya alima Sëriñ Tuubaa def am na ñoo xam ne tey boo leen gisee da ngay xam ne ñii dëggi dëggi xel yu daw ñoo taxaw da xam ne dëgg yi borom dëgg dëgg yi borom xam-xam la ñoom nga jàmmaar lool Serigne Moussa Ka mi ñu fi doon wax ay béytam léegi doy na ci sëkk misaal Serigne Mbaye Jaxate misaal na ci Serigne Mbacke Bousso maam Thierno ak it mag ñëpp rek kenn ku ci ne fa jëmale sam xel loolu la ci gën a yéeme am na ci ñoo xam ne liggéey daan doole indi addi foofu la jëmale seen xel am na ci ñoo xam ne gëstu ci wàllu xam di ko amélioré foofu la jëmee seenu xel am na ci ñoo xam ne ci di ko bàkk ak di ko way ak di fésal am njàngaleem ak mooy kan foofu la seen seenum xel moo tax Serigne Moussa Ka bi muy wax loolu dafa wax ne tërbiya lay yare tër tërbiya lay yare goneem gone yi da leen di tërbiya taraqiya mag ñawoon fa moom mag ñoom da leen di taraqiya ndax tërbiya wu nañ ba noppi tasfiya mbër yu dee fi yéen bañ mën a ànd ak xarnu bi di diraaya lay xamal gone mooy dañ leen di jàngloo rinaaya moo di ay jukkoom kenn ku ci ne yitti wa say mbir wilaaya lay defal boroom cofeel bu am ci xarnu bi kenn ku ci ne daf lay defal wilaaya ba nga am sëg moo tax muy wax naan cofeel gi moom ma ko xamal moom Serigne Moussa Ka ba ma am cofeel gu mat sëkk ci moom xam-xam bi raw na sama xel loolu ñëpp xam nañ ko xam nañ ne moom ni muy waxee du yëfi boppam dëgg-dëgg waaye luñ ko sol la leeram gi xees na sama xol baawaan ci gaa yi xar xarnu bi ndax ñi ñi di ko waxtaanee di ci di ci di ci leer gaa ngi baawaan ba tey loolu dafay wan ni kon sëñ bi ku yitte woon xel la moo tax sëñ mu Moussa daan wax noonu doon wax naan moo tax ba dootuma selaw fu ma toll damay wax nag ginnaaw def na ma nii ba may njuuma di jommale fu ma toll damay wax gars yi moom bala maa noppi danañ xam sëñ Bàmba cofeel gi tee na maa nelaw maa koy wëreeloo ni ngelaw dootuma toog ci xarnu bi bi ci tegee ñeenteel bi mooy sàmm ab der sàmm ngirte xifsul nas lañ ko tudde dañ nas la sàmm ngirte mooy fexe ba njur gi du du arrêté fu ñu toll askan wi di yokk am nañu ko tudde am ñu naan xifsul nasab sàmm askan am nañu naan xifsul ard sàmm ab der loolu borom xam ne dañ cee wute ban lañ ko war a tuddee ak ban moo ci ban moo ci jubluwaay bi ci daruriyaat am na ñu naan xesul ard ci xaaj yi la bokk waaye bokk ci euh, daruriyaat waaye loolu gestukat yi danañ ko mën a gëstu ji kon sàmm ngénte mooy fexe rek ba njur gi du aarifa kuy jur doom it doo ko jaare ci ay caaxaan comme ni ko mala yi defee ak bay may wala ni ko yenn sociétés yi nga xam ne dañoo yàqu dañ koy defee déedéet doo jur ku amul cosaan wala ku amul bànqaas ku amul baay wala ku amul doom déedéet koy jur wala koy sëyal day amu askan wu mat sëkk boo xam ne ko bu ñu bu ñu ko mën a delloo askan woowu sàmm ab der nag mooy ñoŋal ko ba mu am dignité am teraanga am honneur ñett yi yëpp nag muy sàmm ngirte wala sàmm askan wala sàmm der bokk ci li lislaam wax ne dañ ko war a sàmm ngirte wala ab der nuñ koy sàmmee mooy dañu fexe ba mu am te moo loolu mooy ñu fexe ba nit ñi bu ñuy sëy ñu jaare ko ci sëy bi lislaam santaane loolu moo tax ngeen gis lislaam yombal ak kenn yombal lépp luy aju ci wàllu sëy waxoon ne kii gën a ëpp kii ëppale barke ci sëy mooy ki ci gën a néewle ak kenn waxoon ne bu sëy amee nañ wuti seede nañ ko siiwal ba ñëpp xam ne ñaar ñii seen diggante dagan na ba bu ñu leen gisee ab der du fa mën a yàqoo loolu ci sàmm der la bokk ci sàmm ngirte la bokk kon sëy bi nga xam ne moom la lislaam santaane mooy sëy boo xam ne day jur ay doom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne dee leen takk ku ngeen bëgg alwaduut ba noppi mën a jur mën a jur ndax ëllëg yawmal qiyaam yonente yëpp taxawee damay taxaw di pookare wu naan maa ci ëppale askan maa fi ëppale aw xeet daana wax ne dee leen takki di di di ngénte dee leen takk bu baax di ngénte ndax la ëllëg yoomal am damay pookure moom de ci yéen loolu moo tax lislaam di bañ ku lànk ne du ma takk du ma am soxna bëgg koo kal ci kurus gi rek ak ci der gi déedéet wala nga ne lu ma mën di séq ak sama soxna danaa fexe ba liy jóge ci man du àgg ci moom li ñoo asl islam da koy tere wala qatul arxaam boo demee ba war a am doom di def avortement yëpp dañ koy tere ndax loolu dafay tax diñu war a sàmm ci ngértali muy gën di yokk du am imam Buxaari mi ngi nett li ne Usmaan ibnu Mas'ud daf daan wiir rek di jaamu yàlla yor kurus gi rek nekk ci der gi yonent bi ne ko déet bu ñuy boole ci soxna yi boole ci soxna yi kon li jiitu ci jubluwaayu dencante mooy kenn ku ci ne mën a gis sa bopp ci sa moroom waaye mën a dundal sa soxna ak say doom mën leen a toppatoo waaye it li ñuy tudde tax xiir kenn ku ci ne mën a dalal sa moroom man koo delloo si bu jàqee man koo soulager man koo toppatoo man koo dimbale ci ay mbiri àddunaam waaye la koy jëmale kanam ci àllaaxira kon nit ku mu a doon danga soxla bokk ci ab famille eh, dangaa soxla adhéré wu kenn ku ci ne ku ci bëgg nga bu ñu nee diw teg ca doomi diw wala satub diw wala bàyyi diw moo tax lislaam sàmm wàll googu lool daan leen lépp luy aju ci ci ci ci ci ci wàllu ñàkk a dencante wala muy indi caaxal daf ko araamal loolu moo tax mu araamal li ñu tuddee mooy ñaari yu séq wala alliwaat ñaari góor yu séq borom xam-xam ñu àgg nañ ci ne ñaari góor moom fu ñu séqee dañ leen war a rey loolu la jumhur wax am ñu ne tanzir mooy war dañ leen war a yar am na ñu ne dañ leen war a rey xatit ñaari goor fu ñu ñaari jigéen fu ñu séq ne dañ leen war a tanzir dañ leen war a yar yar nag euh, kilifa gi mooy xool rek lu jaadu mu def léeg-léeg mën naa àgg ci rey léeg-léeg mën naa yées rey àgg nañ ci bay wax ne sax kuy séq ak bàyyi mi dañ leen war dañ ko war a yar ndax bàyyi ma kenn warta séq ak moom dara yàlla li ñu yoonal mooy góor ak jigéen jaare ko ci anam goo xam ne xam nañ ko kon looloo tax muy wax ne li ñu tudde planning dafay araam ci nit nu may ñaar ñi dencante dañ ba juboo ndax ñoom ñaar la la concerné euh, ñoom ñaar it xam ndax continuer yi am doom lor la ci ñoom wala du lor ci ñoom moo tax ñoom ñaar buñ ci waxtaanee ba juboo rek baax na bu fekkente ne dañoo bëgg nag di neex ak def yëf kenn sañ leen ko ay moom kenn sañ leen cee forcé comme ni ko ni ko hôpital yi defee léegi kon loolu mooy sàmm ngir lii tax na ba euh, askan woo du sàmm duñ ko ñagal loolu lépp lislaam da koo fàtt da koo tëj daan ne bu kenn tuumaan sa mbokkum jullit njaalo wala nga koy dàqal waskanam naan bàyyi juru ko wala sax nga koy gaaral di ko ca léebuwaale naan daal lu mën a xew sama bàyyi yëpp dañ koy tere ku ko def ni ko lislaam waxee dañ la buggal ñëpp ci mbugal mbugal mooy dañ la duma juróom-ñett fukki bu dee gor bu dee am jaamu ñeent fukki yar yar mooy loo waxati kenn du ko gëm su dañ koy dagg waaye danañ la takkal médaille boo xam ne day wane ni doo kenn doo kenn mooy fisq sëriñ bi nag radiyallahu anhu mu commencé tënk ndax nga xam ne waxtu mu ngi jege sëriñ bi nag wane na aw yoon wu sell ci sàmm askan ak ngerte li sëñ bi ñëpp la mbokkoo woon ñi doon ay mbokkam ñëpp la mbokkoo woon kenn ku ci ne daf la daan jox sa wàccuwaay ak sa daraja bu mat sëkk daana leen jokk daana leen dimbale loolu nag feeñ na ci leetar yi ak ndénkaan yi mu daan def ku ci musaan nekk magam wala rakkam sama mag la lay wooyee wala sama rakk gis nañ wooyee def suñ mbusóobe sama nijaay sama xarit maam jaala ki ma bokkal ndey ak baay maam Cerno sama mbokk mi ma bokkal baay gis nga loolu dafay wane ne kon bàyyi woon na xel bu baax a baax li ñuy tudde xifs wa xifsu nas ci suñ Basiiru dafay wax ne sëriñ bi daana tukki lu bari ngir jaale ji mbokkam ñu ci minanu baax la xadim nee na ba mu demee ba mënatut a tukki mooy bi ko bi mu nekkee ci loxoy tubaab yi daf daan yeble daf daan yeble bu kenn musaan faatu daf daan yeble bu kenn musaan tawat daf daan yeble ñu seeti ko nee na ku mën a ku musaan ku mën sonn la woon ci mbokkam mu tawat wala mbokkam mu faatu mu koy wa tafaq wali tafaqudi di axaarib ak di nemmeeku ñi mbokkal ana diw sàngam baa mi ci jàmm ci lu mu nekk nangam nangam nee na daana yónnee ay hadiye yu baree bari ak i sarax yu bari ci ñi ko soxla ak ñi mbokkal diine ci kon sëñ bi moom war nañu woon mat sëkk sàmm na ko koo gi waaye it daw teg ci deru nit lu ñaaw du xej ak seen du ay mokkal du jàmboo ku ñëw mu teral digal la nga xam boroomam du boddi du ñax du jànn du xotti saatir ba si Musaa a wax dalay yaatal ëffal la nga mel ne doomam ñii la daan dundee kon exemple bi lañ soxla soxla wuñ kuy xastante ci réseaux sociaux yi wala kuy saagante wala kuy bojjante déedéet ki ñu soxla mooy ki nga xam ne dafay jël nit ki mbokkum jullitam teg ko ci kanamam jàpp ko ni boppam du màtte du jëw du xool lu warul te siy suub du rummi du mer du xul ci lu dul boromam yàlla rek du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo ndax fayantoo ki nga def mooy ku ñàkk ku jàpp ne dafa am lu manqué du dog du dog war maa ci mbokkam baa boromam du fàtte du fekki wëllëre musula wor nit du xaddi du naagu yërmale ngir boromam du bew du bojant day waaru di day waaroo ka du ñëkki du fàkki maasam ngir boromam du reetaan nit du farfarloo du sob nit du yàqu der du tas nit ngir boromam la xam ji waaye ji koy yónneen la làmboo mu ne fu la nga neelam yeeg boromam sëriñ bi ni mu fonke woon sax ñuy sàmm askan sàmm der ba kenn teg ci sa moromu euh, nit sa moromu doomu aadama bi jullit dara feeñ na ci am mbindam lu baree bari ba mën a on nasara nit ñi saay comme ni mu ñëwee ci jawharun nafiis di tere ñuy xool jigéen ak xale bu góor bu bu bu bu góor yu ak di wéet ak jigéen ñoom ñëwee ci maxaaliq ak faslun fil ji gi nga xam ne mi ngi ci yenn téeréem yi yooyu yëpp dafay wax lu wormaal tiir boobu nga xam ne moom lañ mën a mooy yàlla waaye moo mën a indi nit ki ci mu def loo xam ne mën nañu cee yàq ak daram bi ci mujj mooy sàmm alal alal sàmm ko mooy yokk ko ñoŋal ko ba du sànq mu am mat ci lislaam ju mat a mat ndax dañoo jàpp dafay sukkandikuwaay bu mat ci sukkandikuwaay yi nga xam ne moom la dund gi am suñu borom tudde na ko xayr aw yiw innahu li xubbil xayr la shadid tudde na ko ziina ak taax al maal wal banoona ziinatul xayaati dunya tudde na ko aw yiw wa innahu li xubbil xayri la shadid jàpp na ne alal tamit ci li mën a sottal lu baree bari la ci ak jaamu yàlla waaye noonu it lañu gisee alxuraan ŋàññi na alal fu baree bari nee na fitna la nee na ëllëg yow dañ ci topp nit di ko ci xisaab nee na lu ma loolu loolu moo tax ginnaaw gis nañ fu ñu koy tagg gis fu ñu koy fu ñu koy ŋàññee loolu moo tax borom xam-xam ñu ciy ŋàññi amul luñ ciy tagg ki ñuy ŋàññee ka tagg mooy ki nga xam ne moom la yàlla teg bu ca defee lu baax jub di ko fàggoo na ko war a fàggoo du ko dugal fa mu ko war a dugal kooku dañ koy tàgg alal jam yor alal ju baax la bu fekkente ne nag da cee def safaan alal jam yor du alal ju baax kon noonu lañ koy sàmmee sëñ bi nag wane ne alal moom ñaari mbir rek la mën a def ci nit ñaari mbir waxoon na ne almaalu yumiilul qalba imma ila llaahi taala wa imma ila gayrihi taala alal dafay soppi xolu benn yàlla wala mu yóbbu ko ci kaneen daan ne alal ji lay yóbbu ci yàlla mooy alal ji nga xam ne dañ cee saraxew baa nga jox ci addiya baa nga maye ko te yàlla tax baa nga wala nga jariñoo ko ci topp yàlla wala nga dépensé ko ci yoonu yàlla daan bi lay féewaleeg sa borom nag mooy alal xam ne dañ cee mooy yàlla kon alal ngànnaay la boo xam ne dafa am ñaari ñaw ko mën na koo jëfandikoo ci lu baax mën na koo jëfandikoo ci lu bon sëriñ bi moom li mu jàpp mooy alal boo ko fàggoo fi nga ko war a fàggoo def ko fi nga ko war a baax def ko fi nga ko war a def moo xam saraxe la moo xam dépense ci yoon yàlla la loolu lépp mooy tax alal ji nekk alal dëgg-dëgg kon liñ koy sàmmee mooy di ko fàgg yokk di ko gës nuñ koy ban a amee waaye buñ ko amee ba noppi ñu dépensé ko moo tax boo gisee Sëriñ Tuubaa di wax naan wa in wajadtahu fala tudayya fa man yudayya al xalaala duyya boo amee alal bu ko sànq ndax sànq gi dafay dafay juyoo ak sàmm alal kon boo ko sànqut noo koy def atiq bihi kafa infaaqi minhu allazi tada bila nifaaq boo ko amee da ci da koy sàmm ci di ci topp yàlla ak di ci dundal te yàlla tax nit ñi tax nag ba alal du duñ ko ñàkk mooy bu ñu ko amee ba noppi ñu bañ koo sànq bañ cee tirise bañ cee naxante bañ kee tooñ bañ cee wor wurut bañ bañ koo lekkal nit te seddul xolam da jaaruñ ko ci anam yoon noonu la ñuy sàmmee alal ji dañu wax ne lislaam yépp boo ko doon boole sàmm ci wàllu alal ci wàllu jëflante yi la jubluwaay ba ca gën a mag ba mu am mooy sàmm alal ba du am benn lor fexe ba mu leer nit ñi bu ñuy jëflante lépp leer ñu tawfiq ko bind ko ku amee bor ku amal sa morom bor bind ko isa daa yéntam bi dañ ilaa jënmi saman faktubu waaye it uqud yi mu def ko mu nekk uqud lazima boo xasee jëflanteeg nit jeex na boo ko sañ a loolu lépp ngir wane ak maanu ibnu ashur boo ci jàngkat yi ko jëm ci maqasidu sharia islam yi ibnu ashur wax wane ne na alal islam am na ci juróomi jubluwaay mooy bëgg muy circuler bañ a taxaw di jóge ci borom doole bi dem ci néew ji doole ji waaye fuñ ci jëflante lépp leer muy amul ruux ñu sàmm ko mu sax ba noppi amul maam sëñ bi radiyallahu anhu joxe na anam bu leer ci ni ñuy sàmmi alal xam nañ sëñ bi ci bi muy nekk tuut tànk ci saaxir defutoon yitte lu may ci sàkku xam-xam musta commerce musta yaxantu musta bay noonu la ko borom na fa xatu miskee waxee waaye boo demee ci Sëñ Basiiru lii borom na faxaat wax Sëñ Basiiru da koo dëbbal da koo dëggal dafa wax ne sëriñ bi ba mu nekkee tuut tànk la ko yitteelu mooy toppatoo waajuram léeg-léeg daana am luñ ko daan jox waaye lépp da ko daal di jël jëpp maam sëriñ nee na nit ñi daanañ ko defal ay teraanga yu bari ndax dañoo yaakaaroon ci moom barke dañ daa ñëw di sàkku ci moom ñaan ak di ko wax mu leen di ñaanal ci yenn yu leen dal mocc ruqiya charia bu leen ñaanalee ñu gis ne lam leen ñaanal yàlla da koy wuyu ñu jël dara di ko jox waaye loo loolu musaan jox rek da koy joxaat Maam Mor Anta Sali kon li muy faax la waaye la dépensé la sëñ Basiru neen si Tuubaa moo ne ma man de awma woon man-man bu bari ci wàllu mbay ndax ni ma yàlla binde awma kàttan ba noppi it da awma faral di jaxasoog nit ñi nee loolu sax damaa ne moom ba sama waajur da koo xam ci man muy Maam Mor Anta moo tax bari bari ci wàllu boobu dama koo wàccee noonu waaye nag sëñ bi mooy wax waaye nag ma xam ne nit it wax dëgg yàlla mënut a dund ci mbooloo ba noppi du leen amal njariñ moo tax nee na dem di bind ñu may may jàngale léeg-léeg ñu jox ma dara waaye nee na lu ñu ma mës a jox rek du ma ci jariñoo dara lu may la mënut a ñàkk ci man la ci def lépp dama ko jël jox ko addee Maam Mor kon jox fàggu lu lew ak joxe addi dafa bokk ci yoonu murit tam ñaar yooyu rek la ñuy sànni alal da koy wute fa nga ko war a wute dugal ko fa nga ko war a dugal suñ tubaa nekkoon ku dëdd ku dëdd adduna addi yi daañ ñëw ci moom bare na lool Cheikh wax na ci lu baree baree baree bare waaye daawu ci am soxla nee na ku ko daan jox lu bare ku jox lu néew la yamale ku daan jox lu gàññaroog suufe la yamale nee na moom daal addi yi daañ ñëw ci moom dafa jàppoon ne ab gardien la rek boo xam ne dañ ko fee teg mu war a jàng te xaarisin yu xassin wala xaasinin loolu moo tax euh, seet ba mu koy tagg dafa waxoon ne man kaana bil maali wal awlaadi mushtaxilan fa mashtaxalta bi amwaalin wa awlaadi gars yi bu ñu dee xëccoo alal ak doom yow alal doom yitteelu la am na kilifa bu baax boo xam ne Sénégal gii la dëkk li ci kilifa yu baax yi leetaram bindoon na ab leetar di sàkku ci suñ bi ndimbal waaye dafa bokkoon ca la mu ko wax ko waxoon ne ko yéen kat da ngeen a bari alal lool te amuluñ ci soxla ñun nag dañ ko dañ cee am ci am dañ ko denc moo tax ma bëggoon ma amoon soxla bëggoon nga dimbale ma ci Cheikh Saadu Abihin noonu gis ngeen bataaxal bi nga ko yónnee woon suñu Basiiru nee na yër naa ko waaye bokk na ca la ma ca gis mooy la mu ko wax mooy li tax ma lay ñaan alal ak àdduna damaa xam ne yitteelu la yitteelu la wa hal yastawi man hammuhu batlu maalihi wa man hammuhu fi jam'ihi waqtinaa yi bay ju am solo yooyu ko Seex Sidiya tàgge di wane ne gars yi moom dajale alal ak yooyu bu fekkente ne moo leen yitteel yow yooyu loolu yitteelu la Seex euh, moom Bachir nett na ci lu bare bare bare bare xam naa waxtu yi daa cate waaye am na fay wax naan li ko daan ñëwal ci alal moom kenn xamul nu mu toll waaye nag lépp da ko daan seetliwaat nee na dangaa gis murid yi dañ daan daj bu ne ngir rek bëgg a gis suñ Tuubaa ba jox ko addiya nee na fan si baabu risqi ilayhi kal waabili daay wërsëg yi ni ñu toll moom kenn mënu la ko misaal waaye nag lu a ñëw daf koy daal di ci nit ñi ci daw na am na bis sax sëñ bi gaa yi xëccoo xat-xat loo ba ñëw ba jox ko àddiyee nee na demee boppam sëñ Basiir mooy nekk li nee na bi ne ma cay li yéeme na rek adduna daal ñu da nga fay gis ñaari waay da ngay gis koo xam ne benn kenn ki buur yi lañ jubloo kenn ki bay not nit ñi ëpp leen doole di leen dumaaka dóor ngir bëgg a nangu seen alal te nit ñi luñ ko jox xamal ne dañ koo jox ci force ak noteel waaye seddu seen xol gis na koo xam ne ñu koy indi lépp lépp di ko ci lépp di ko ci di ko fa fekk si te nag sëñ Tuubaa mooy wax de te nag joxe addiya dafay mel ne ka gën a mën am la ko mooy ka xam ne daa ñëw ba noppi jëloo addiyam kon loolu dafay wane ne dem wuti waaye ñëw indi ci murid gi la bokk ci cëslaay la bokk ki toog nag ñu koy indi lépp sëñ Basiru nee na waxu ko nee na sëñ ko de waaye moom moom ñii la moom moo toog lépp yi dox <laughs> moom moo toog lépp yi ñëw indi ci ay misaal yu bari ci ci ci niñ fa daan indee ay xaraki giléem ak dañ fa daan indi ay saako ceeb ay dund bari bari mu moom misaal ko ci waaye ñàkkoon duñ ci ñàkkoon am soxla suñ Basiru nekk na ci beneen barab ne am na bis am ku ko indil addiya am ku ko indi nee na suñ tubaab musta musta denc pàkk musta am ay terrain yu ñu denc musta tabax kër musta yar bay yi noonu la ko waxee ci minam musta coog wala mu xaawil sultaanam musta coog te te nag yomboon na ko lool mënoon na ko def bu ko defoon rek yi yëpp ñëw waaye teewut alal li mu ci daan am moom kenn xamul nu mu toll nee na maa ngi fàttaliku bés ñi mu ñàkkale woon solo alal maa ngi fàttaliku gis bis benn taalibe dafa ñëw indi fa ay ndab yu diis kenn ak i dërëm dërëm dërëm yoo xam ne ay pièces la nee na sëñ bi daan ne ko waaw nañ nañ ko àndale nañ ko àndale fële daan ne sotti leen ko ci suuf nañ sotti lépp ci suuf nee na gaa yi bi ñu ko sottee ci suuf alal tax na. dañoo dem jël ay làkki seng di ko ci dajale di ko paqueté bi ko paqueté ba noonu tasanteeg waxtu julli di jot nee na suñu tubaa robb leen gaa ci nekk gaa yaa ngi ci nekk moom ndax alal la nag alal alal la gaa yaa ngi ci di ko yittewoo nee na suñu tubaa romb leen jëm ci jàkk ja yëgul ni sax yëgul ni sax ñi ngi ñi ngi ñi ngi dajale alal wala di ko nee na ba mu jógee ca jàkk ja moo la ñëw fa di di siyaare si ak di sàkku ndimbal mu jël lépp jox leen mu jël lépp jox leen nee na lii ma wax nag bu ci déggee lenn dama la cee jox misaal rek waaye li mu am bari na loolu kon amut amutoon solo alal gis nga xissa bi nafaxaat di nettali ci murtaniye bi ñëwoon jox ko ñetti téeméer da ko bëggoon a sëñ bi julli ji mu def mu def ci néeg bi dem sëñ bi bi ñëwee dugg ci néeg bi rek xet bu naqari di ko xeeñ mu ne ku dugal sobe sama néeg taalibe yi ñëw di bagage yëpp taalibe yëpp bi duñ gis dara gis duñ fi gis sobe ñu dara nekk mu ne ah xet gaag may xeeñ ba tey ñu dindi waat xool xool roq-roqaan yi fu ñu xool dañu gis dara mujj am ko gis benn takku xaalis daan ne ko ah fii daal xaalis bi dong lañ fi gis sëñ bi ne ko tigi laa doon wax ku ku ku si ci sama néeg loolu moom baneen baneen baneen tolluwaay la baneen wàccuwaay la waaye nag waaye nag wane na bu baax baax baax ne moom alal amul ko woon solo kon moom la si ñu saaka dërëm du yàq ab deram wurus du tax mu ras bëtam yow yomb na lool nag am na ñoo xam bu gisee dara rek da koy xam ci seen i bët wurus du tax bu raf bëtam naw xeebul moo gën a wuute xarnu bi <laughs> dërëm xàmmewu ko dërëm xàmmewu ko xandeer diinaar xàmmewu ko ganaar kuy waaru bàmba doy na waar ci yàlla ba job xarnu bi mbindeef yi yépp a yamoon fi moom mbindeef yi yépp a yam fi moom alal yi yépp a yam fi moom bëggul bañul xeebul du yéem mooy kenn oo yenn góori xarnu bi bawol bawol akuk ajoor sàmm ki baadoolaa ki buur ku laaj lay sa muur di nekk li def ci kon loolu moo aju ci sàmm alal am na nag ay mukammilaat waaye waxtu yu mayu ko ku ci bëgg ay yaata mën ngaa dem ci imaamu bi ci al-Muwaafaqaat wax na ne ñeent juróom yooyu pour ñu sàmm ko dafa am yu koy accompagner yu koy accompagner benn bu ci ne dafa am charte charte bi nag léeg-léeg mukammil bi maanaam liy accompagner léeg-léeg mën naa dem waaye nag li ñu war a sàmm moom dañu ko war a sàmm loolu lu bari la fi may ci ñaari minute mooy nag am na ci yoo ne daf ñuy may ñu mën a sàmm juróom mbir yi muy moom la tuddee ay xawaanit loolu ñu ko jàng ci al xawaanidul fiqhiya am na ci yoo xam ne dafay jàpp lool boo déggee ñu naan la ad daruraat tubiihul mahzuraat li ñu la tere léeg-léeg ñu dem ba daganal ko ci yow li ñu la tere léeg-léeg itam am na ci loo xam dafay araam ndax da ko war a sàmmi daru yaag yooyu waaye léeg dañ la koy may may gi ñu la koy may moom ay ruxas am na ci dañ la koy may nga xam ne dañ naan la la la araamoon moom na ci yow lu mel ne lekk medd koo xam ne dem ba amoo lenn ngir sàmm sa bakkan may nañ la nga nga nga day dagan ci am na ci loo xam ne moom atte bi du soppeeku de atte bi dafay nekk waaye may nañ la nga def ko lu mel ne koo xam ne dañ laa forcé la Euh, jëlal alal ji wala ñu rey la da koy jël waaye nag du tee jël alal moom day araam ba tey ndax bu boroom ñëwee da nga koy fay am na ci loo xam ne du dagan mukk euh, masalan daruraay am na ay charte waxtu yu mayew ko ci jigéen masalan dagan na ci moom mu def avortement bu fekkente ne ak dundam dafa tegu ci danger nga xam ne bu ko deful rek xëy na euh, mën na caa jaar faatu ko mën naa def avortement xam ngeen ne sàmm sàmm bakkan fii ci sàmm euh, xaaxida bi daf ñuy dimbale ci sàmm bakkan léeg-léeg fixé ay prix xam nañu prix kenn daw ko fixé loolu dafay dugg ci sàmm ay bakkan si moom Jóob Dagana mi ngi nekk li sëñ bi am na ko mos a ñëw ne ko man de moom sama yaram daa nanguwut ndox waaye teewut fu ma toll damay jàppoo ko sangu sëñ bi ne ko déedéet bu fekkente ne da am lor du mat sëkk bul jëfandikoo ndox ndax loolu day day indi nga rey sa bopp te nit sëñ taray boppam Euh, nit nit ñi yëpp nit ñi lépp soxla li li nit ñi soxla te mënuñ koo ñàkk loolu day dem ci daruura moom it dañ leen koy may masalan xeeti opération yi ngay gis ñu koy def ba noppi di doroke nit di doroke dañ koo dañ koo tere waaye nag ngir sàmm bakkanu doomu aadama nga xam ne xam nañ ne bu ñu ko dorogewul mën na cee jaar faatu loolu tamit ngir sàmm bakkanam mën nañ ko koo may lu mel noonu ñaari lor ak njariñ saa yoo xam ne dañoo dañoo dañoo wute dañuy jiital ba ba dañuy jiital njariñ la bàyyi lor loolu ku ci bëgg lu gën a yaatu mën qawaidul ahkam fi masalih al anam euh, lil Izz bin Abdusalaam ñaari lor saa yu tasee ñoom it dañu xool ba ci gën a tar ñu bàyyi ko ñëw ca ba ba gën a woyof masalan nit buñ ko buñ ko forcé woon ci mu njaaloo wala mu def ak ngóor jigéen euh, dañu xool am na ndax dañoo wuute ban moo ci gën a tar ci borom borom xam-xam am ñu ne lislaam euh, njaalo moo gën a tar am ñu ne def ak ngóor jigéen moo gën a tar waaye boo xamee sama sëb koo xam ne dañ koo forcé mu naan sàngara yu mel noonu mën na koo naan ndax sàmm dundam sàmm ak dundam koo xam ne masalan dañ ne ko mu jël alali nit wala ñu rey la bu boobaa dama dañ naan ko dama jël alali nit boo bàyyee ba dund nag boo amee fay ko ndax kon gis nga ne kon ñaari lor njariñ ak lor fu ñu tasee dañuy jiital njariñ bi ñaari lor fu ñu tasee dañuy dañuy euh, ba gën a tar ñu bàyyi ko def maa ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Abdul Qadir ci waxtaan wu am solo woowu nga xam ne indil nga ko ci bunt bu am solo boobu waaye di bunt bu yaatu boo xam ne xëy na waxtu yi du mën a maye ñu mën a indi li ci aju lépp waaye alhamdulilahi rabbil alamin li nga xam ne moom la ci mbokk yi doon séntu indi nga ko muy bunt bu yaatoo yaatoo yaatu boo xam ne comme noonu nga ko waxee rek képp koo xam ne bëgg Euh, ba gën a lu ci gën a yaatu mu dellu ci euh, téere yooyu nga xam ne wax nga ko euh, xam naa du tënk li nga xam ne moom la sëñ xaaj Khadre doon wax xëy na du fi du fi du fi xaj ngir ne waxtu yi daanaka daanaka jot na waaye dañuy mbokk yi dañuy wax rek ne ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo doon topp jataay yi képp koo xam ne bëgg nga cee bëgg nga ay ay laaj yoo xam ne bëgg nga koo laaj

kon bépp mbokk boo xam ne am na kestion boo xam ne xëy na bëgg na koo laaj moo xam li aju ci liñ doon waxtaane wala sax leneen loo xam ne ci mbirum diine la aju rek incha allah bu jokkoo mbokk yi ci numéro yooyu bu soobee yàlla danañ ko tontu laaj bu ko defee mbokk yi dañuy sant rek mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon euh, euh, topp jotaay ci moo xam ci barab bi la moo xam ci yi nga xam ne mooy jumtukaay tas xibaar yi di sant mboolem jumtukaay yooyu nga xam ne ñooy tas xibaar yi rawatina euh, chaîne télévision bi nga xam ne mooy chaîne officielle yu jumaa ji muy GMT TV di sant mboolem mbokk yeneen yi nga xam ne ñooy yeneen euh, taskaayu xibaar yi nga xam ne ñu ngi euh, jàllale jataay bi kon ñu ngi sant ñëpp incha allah suba bu soobee yàlla ci même waxtu wi danañ amal beneen jataay boo xam ne it ci loolu lay aju rek muy waxtaanee diine muy falsafatul falsafatu salaami fi taalimil islam mooy philosophie jàmm ci jàngalee li nga xam ne mooy lislaam di ci ànd ak nag mbokk mi nga xam ne mooy docteur Khadim Silla kon ñi ngi jox mbokk yëpp di daje suba insha allah wa axiru daawaana an alhamdulillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa